ila la li la la le waaw waaw DJ bëgg ndongol international waaw waaw ay waay sama gaañi waaw waaw suma woyee ndaa naan la ñaari yoone waaw waaw suma duggee ci géemu way bi sama gaañi dañuy taxaw xaare waaye DJ Bongo Ndongo l'international bi saa yu duggee ci géemu animation bi sama mbokki animateurs yi dañuy taxawu xaar ay ca mi noonu seen émission Ndongo Lo ba tey ba tey tamit euh, ndeysaan chaque dimanche rek de 19h jusqu'à 21h mais nag macha allah dimanche bi maa ngi invité Ousmane Ndiaye Gawlo incha allah tamit ca rajo Leral FM de 19h ñu tàmbali jusqu'à 21 la bu mu jokaay bi nag ku ci bëgg a participer rek mën nga oote ci 77 215 30 03 dimanche bii lay mais le di ànd ak seen stable de la musique sénégalaise di wax tamit ne suñu mbokki sponsor rek macha allah macha allah tamit ngeen ñëw ak tamit ak doole macha allah tamit euh, suñu mbokki sponsor rek ñëw leen macha allah seen émission Ndongo Lo ba tey du changé chaque dimanche rek macha allah tamit bëri ci mbartal la ngeen ñëw tamit teg ci parce que nee naa tamit ndeysaan bëri teg mu dem tegul loxo mu dem kon gars yi ñëw leen tamit teg si loxo di jaajëfal gars yi bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax tamit euh, vraiment tamit euh, parking Touba automobile nekk fële tamit cité gàddaay jiidiloo généralement tamit nekk tamit petit Tyson maa koy ziare bu baax a baax di ko bëggee di ko wax tamit nii kese la quand c'est important il faut écouter et seen émission Ndongo Lo ba tey ci rajo Leral FM nag nee naa tamit rajo FM moom macha dafa large parce que boo nekkee tamit euh, biir Ndakaaru Ndiaye ak jàpp rajo bi tamit. point 1 Ziguinchor boo nekkee tamit Touba Mbacké ba Diourbel ma nga jàpp rajo bi ci 87 point 8 waaye boo nekkee Kaolack mën nga ànd ak rajo bi tamit ci 100 point 4 nga nekk tamit au niveau international bi mën nga dem tamit ci digital bi rek boo demee digital bi mën nga dugg tamit ci page leeral ci Facebook bi rek nga def rajo leeral FM 96 nga dugg tamit Facebook leral, rek macha allah nga abonné wu xaarandi ñu foofu suñu live en direct yi nga dem TikTok rek nga dem tamit ci TikTok leeral Sénégal tamit macha allah macha allah nga àndane ak ñun suñu ay programme leeral FM c'est la rajo partout ci digital bi ci tamit euh, émetteur bi fépp macha allah tamit ñi ngi émettre bare tamit du changer ngeen dem tamit ci 3w ngeen dugg tamit ci site leral.net bi rek macha allah tamit euh, ngeen jàppandi fofu tamit euh, radio bi ngeen and ak radio bi bare tamit du changer ngeen dem tamit Play Store wala tamit am Store ngeen tàppe suñu ay application leral and ak suñu ay programme gaay ki koy jëm ak ko man c'est pas la important bokul ki koy jëm ak ki ka man bokul radio leral FM dafa jog ca fajar di leral di leralat ba tamit ndeysaan dëkk bi leer naññ nañ naññ jaajëf gars yi caaw caaw incha allah ba dimanche ngeen xaarandi ma 19h ba vint h ak DJ Bëgg Ndongo l'animateur incontestable.